di sunu xarit di sunu wëllëre kàddu gi it kàddu yi lay biire rek la ak yeete loola weesuwut fan yi am na loo xam ne dafa xew ci sunu njaboot muy kenn ci muy sëñ Maam Balla mi toog sunu jarbaat la way juram ak sëriñ Habibu Saaxo mi ngeen xam ci kër sëriñ bu ñoo bokk wenn way jur waaye nag xam nga sunu borom day dogal ay dogalam ci ab jaamam fan yi nag mu bari ñoo xam ne dañ koy woo ci yenn sit yi eh, di waxtaan ak moom muy xamle aw lang woo xam ne dafa feeñ ci moom ñu ilham ko ko waaye loole nañ lañ bëgg a xamal mboolem adduna bi bokki jullit ak bokki taalib yi ñu xam ne loole day ab yan la bu ne ci moom boo xam ne eh, du ak tayeef kon nañ xam ne loole sëriñ bi digal na ko ngir mu teg ko fi suuf bàyyi ko te li nga xam ne ay maamam ak i baayam ak i nijaayam moom lañ xam nekk ca mu ne ca loolee ndax mi ngi nii judd na fi mu war a juddoo ñu yar ko jàngal ko alxuraan ba wattu na alxuraan xasee Sëriñ Tuubaa mokkal na ci lu bari waaye nag loolee léeg-léeg mu def ci nit ab yan waaye na ñëpp xam ne loolee muy def amu ci ndigal te it bëgguñu kenn di ko ca jàppale ci loo xam ne day gën a yóbbu am xelam wala muy gën a di ko yóbbu ak tumuraanke ndax lim xam muy wolof wi mu nàmp ay bokkam yëpp xam ko lu ca euh, mënta ñàkk dolliku na doon langu xarab wi nga xam ne ci la ñu wàcc alxuraanu karim mu gën a jekku alxuraan gën caa jekku xasida waaye nag weneen lang wu ñuy wax dañ ko ilham loola kenn ko ku xam na ne loola ay mbir la waaye du du lenn loo xam ne kenn war na a jàppale kenn ngir mu yàq ak dundam wala mu yàq am am xelam loolu sëriñ Abdou Samad waxoon ne nañ ko leeral ngir ñëpp xam ne noonu la demee euh, loola daal nañ xam ne euh, ab yan la ci moom Eh, boo xam da koo da koo dab waaye nag nekkul luñ ko war a jàpp ne ko ñëpp ñaanal suñu borom waaye fal ko waaye fal am xelam may ko ak wér ba alxaan jee mu ne woon di jàngale mu delluwaat ca loolu rek lañ soxla ci moom. kon loolu nañ nañ na waaye ñi nga xam ne ñooy tasaarukaay xibaar yi di ko garandoo ko ak di ko tasaare nañ xam ne loolee moom nañ ko daa teg ci suuf ndax amu ci ndigal tey loolee du ak defar ak yàq rek la. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk jullit ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di jégalu di yi yëkkati ci kanamu kilifa yi ay kàddu cant rek lañuy yëkëti ndax mam balé maam moom ñu bokk nday ak bay yaakaar ñu bari min nañ ma ni ko suñu am di waxee rek wurmu ci wona ñëwaat ndax ñun suñu waju dafa tél noppalu suñu kilifa yi ñi xam mo lañu yalla bolé suñu nijaay lepp ñoko def ci ñoom ñu ngi jàngal alquran ñoo ñu defal lepp ci cour ne sama waju bu fi nekkon ñu nekk fi mënu ñu def ci man lu xaw fooxa li ñu defal tàmbalee ko suñu yibu sax ñu jàngal ñu alquran ban demee ba tollu ci lepp lu ñu wax nekk ñu ci nekkal mam balé mi itam ñu bokkon dara mu mokal alquran di bekk man mii itam ma nekk fa yàlla dogal ma àggal ma beqi bind naa fa kaamil def lépp bañ fa jógee ba léegi kenn bàyyiwuñu ci laa nekk waaye moom mii nag lépp loo xam ne suñuy kilifa nañ ko defal defal ko ay kilifaam lu ma sa bëgg taxaw nañ ci kon jàpp naa bu demee ba toll foo xam ne ñi dañoo war a wéy i digal di bàyyi seen naa def nga nekk ci bi ci réseaux def yoo xam ne ku ko dégg rus mel na dañ laa yurut woon laa dégul ci yoon sama mag la wur ma koo yedd waaye man ko ndax wax dëgg yàlla itam loolu boo ko defee boobu ba léegi nit ñi ndax dañ koo njëkkoon woon ne ko bàyyil bamna bana am ko xamne ci ni mo ñëwaat waxaat ay wax ñi waxaat nga mu duggalé ko ci lolu ëpp na def kon man lima koy ñaan du ko sant moy na wéyee ndigal bu joggé fi tamit kaddu Sëñ tuba dara gën ko foox kenen ko lo waat dila la wax la ko la mën do waxaat mu seetaan la loolu daal moom ok ba do ko defati do jërëjëf saxal xëyal jere alxuraan di gond ci xasida yi dellul ci delul ci alcorane yi te ci caaxaan ci yi ngay wax yëpp bu la kenn lo ñi lay wo di la lo ñëpp bëggub xaaliss di aw ci yow di am ay wi dong la li ci des yàqal yoon wi dong la dañ lay utiliser dong bu ko nangooti sa saxal ci alxuraan ak xasida képp ñaar yooyu booy saxee kenn du la woo di la jëriñoo li ci des seytaan dong léegi bis naka tey nu ko sëñ jox bis naka tey tuub nañ ko rek léegi dañu fas yéene dellu ci alxuraan ak ci xasida man xam ne ñun doxuñ ci jaxaan waaw بسم الله الرحمن الرحيم إليك بأستغفر الله بي أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ثوائر ومن خيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ثوائر ومن خيوب سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناي تبت له من جملة الزغير مع الكبائر ومن دمائر غافر لغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملوا وأدبوا وفهما ربي الكذب العلوم النافع وجعل حياتي من ثقاء إيمانيا اكذب لي الأسرار والغوامد يا غير من كذب سرا غامدا لجمع جميعا ما تفرق لنا قدي من الخير وزف الخلدا لقدر لدى تفكري لا سمايا ربي بكو والتعصمان قلميا هبليا يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والعلاوة بارك لي اللهم في حياتي وجعل فؤادي وطن لياتي أبلي كوني بدر كل من يتوب وللسوائر أبي ما الغيوب subhaana rabbika rabbil izzati mbak mbak mbak bala ñu ngi lay sant tur suñu yibu saaxu ndax itam wax dëgg yàlla lii nga def nii ñun ñëpp nga ko defal suñ tubaa ngay liggéey yàlla suñ tubaa fay barke alxuraan jërëjëf وقل الحمد لله الذي لم يرسل الذنب آمين وإذ الله من جنابه آمن له الشكر إذا ائتنا به وإذ الله من جنابه آمن له الشكر آمين يا رب العالمين من جنابه آمن وادفع به قبل التوجه إليهم إلى سواء خارجة آمين يا رب العالمين